asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu bokk yëpp di siyaar di am mbégte ngir fas yéen tàmbale wattaayu màggal gi ci lépp loo xam ne moo la Moukhaddamatoul Khidma war a taxawe te mu jëm ci seetal jumaa ji seetal dëgg la sañ ñu ngi koy def waaye lii nag am na ku baaxoo def ñu tudde entretien général nga xam ne dañuy dindi mbooleem pënd boo xam ne mi ngi ci kaw ak sens bépp pile boo xam ne lakk na fi ak bépp ventilateur ak lépp loo xam ne lu aaja defar la moo xam ci wàllu wala lu mën a doon ñu fas ki ñu tàmbale incha allahu rabbi suba ci altine ji dëppoo le 6 septembre 2021 di 28 muharram li tax na ñi jiitu ñaari fan premier safar bi ndax kenn ko xam ne ko ba waxtaan bi premier safar waaye ren tax teel ko mooy dañoo bëgg njëkkee barab bi incha allah rabbi def ci liggéey bu gën yaatu nañ ko baaxoo defee moom it ngir bëgg ba li safar ji fekk moom muccate ñu daal di mën a ji incha allah rabbi kon liggéey bi mi ngi nii ngeen ko gisee rek ñu ngi waajal gont ni ngi waajal gont nañ tey ngir waajal bépp matériel boo xam ni moo lañ war a liggéeyee ak bépp jumtukaay boo xam ne bar bi soxla woon na ko liggéey bi daal kon mi ngi nii incha allah dañu si kon tam ji eh, di ñaan yàlla tàmbale ko ci jàmm àggale ko ci jàmm ginnaaw bi nga xam ne nag def nañ ko ci ndigalu sëriñ bi tey jii rek ci dibeer ji la fa ñoom demoon. ba sami joxaat leen déggal soññaat leen ñaanal leen ñaanal ñu ngir ñu def ko ci jàmm am ko ci am ci ndam kon daal liggéey tàmbali ko ñun fii ba màgg jeex incha allah soba yàlla noonu lañ ko fas